خسرت سكر سيدنا إمام محترم كنا منك وانت لا إله ويبقى وانت لا إله ويبقى وانت لا وحسن ظنه برأي الرحمن جيب المنى وهم رسول الله سمى بما مولاي موي رحمة Seydi Ran Fulayoo kanam Seydi di ab xarit yaaru ngën bi wëllëre Seydina Limaamu Laay nee na malaaka may rutti sëru danaa ko xool nam koy ruttee daneew ko xool limaamu toog di ko mbëggal ci aw melo maa fa teew te néew ma day janoog jëmmam sama limaamu laay nen bu ñu yeggee ca xabru ba ba ñetti góor dugg ca biir ñetteel ba mooy limaamu laay te néew ma day janoog jëmmam sama limaamu laay nee na maa nga ca biir pax ma bégal ko ak dalal xel ca ndigal xaalixul araf lu leewul néew yóbbu firdaw ci këram sëriñ daal imaamu laay nee na firdaw ci foofu mooy palaas ñu ngeen di xaare bis ba yàlla yi wëllu buft bopp nekk door a dem këram sëriñ daal imaamu laay nee na bu nu yeggee bu nu sangoo ca kaw taa nooneel ya foofu lay dañe mbañante Seydina Limaamu Laay nee na wilaya ñooy mu xam ne doon ñooy sañse saytu ay balaas di teeru gaay daa zikka di roy Rasul saytu na Seydina Limaamu Laay nee na jigéen ñi aljana nga toog sañse di teeru teeru gaay ñu takk sëy yëpp képp kenn xam ni ñiin amul moroom Seydina Limaamu Laay nee na kaw ma leen ba ngeen di tàbbi aljana Seydina Limaamu Laay nee na borom ma leen ba ngeen di tàbbi àjjana sox borom jàmm laay yëkkil sa ñaari borom màggal ngir ñaari maamu laay neen borom ma leen ba ngeen di tàbbi àjjana ba toog keral ya fàtte ma ba fàtte yàlla seen borom si ñaari maamu laay neen bu ngeen am li ma wax bu ngeen di jaamu rabbana te ku nekk doo di dem gërëm si ñaari maamu laay neen waa ji ci mooy samay ndigal malaaka ma yëru ci sërëm الإمام يا رسول الله بالله إمام يا عبد الله الإمام يا رسول الله سيد المباحمة لأن دار وكافا تيرو تم خرج جلالهم ñuy seet weer farween weer suux mu sax ci lëndëm ci bapte sin ci atam gàddaay jub dellu tey ngir fekk imaam ja imaam fu nuy jëleetee fu nuy xooleetee te doon noon maam imaamu ci ay jikkoom yu sell ya doon noon li saraaxe alal sëriñ laan mu baax maam toppoon na bay siini taw fonkoon na bay Abdoulaye fonkoon rakam yu sëriñ am noon basiiru rakam mag doon ca bay laay wayo ko sëriñ am da caa boole رشدة النوي قد يومي عن البصر ku jaamu yàlla nii borom daan daal di koy teg askanam ku dëddu yàlla nii borom dootu ko xool ci àdduna maanu la mujj a mooy ku doy kun Seydina mu doon te mooy te tukki maamu laay nii kun watuna li rabbina mun Seydina kun Seydina ma joon البلاد وبالمصلين مخلصين من البلاد